laa uqsimu bi yawmil qiyaama النفس اللوامة أيعزب الإنسان أن لن نجمع العصام بل لقادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه

ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمت وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة صدق الله العظيم Somebody got four.

sama tonton ñaati yoon man damay raxas sama xarkanam sama tonton ñaati yoon man damay masa sama bopp delloo ma saabi benn yoon man damay masa sama ñaari nopp benn yoon man daa may raxas sama tànku nday joor si baaraam bu ndaw bi jëm mag bi ba samay nday joor yoon man daa raxas sama tànku càmmoñ tàmbale si baaraam mag bi jëm seeboo ndaw bi ba samay nday ñatti yoon al seka wa asada ala Serigne Touba kon ñu jaajëfal leen rek ñoom ñaar ñi nga xamante ni ñoo doon def su'aal wa jawaab kii laaj na ko naka la ñuy jàppoo mu wax ko kii laaj bu nekk boo jàppoo pare lan ngay wax Serigne Abdou Samad Fall nag li mu wax moom leer na nañ loolu nga xamante ni ma wax mu ni ay Serigne Touba. yéemal na ci Serigne Touba. war lépp lépp lépp yéen nga ca xamuñu ñun lan la ñuy organiser ci école bi xamuñu la xew ci école bi soxna Anta ndëgg ni ñun ñoo waroon di togg añ ya ñoo waroon di séddale ñoo waroon di organiser defuñu ci dara lépp yéen yal na leen yàlla fay ci barkeb Serigne Touba Mbacke lu ngeen yéen ci seen doom yii yàlla na ko yàlla def tam jaarale ko ci loxoy soxna Anta dem yii ci barkeb Serigne Touba yàlla na ngeen ànd ak moom lii yàlla na ngeen ko eggale yàlla na ngeen gën a sokkaloo ni asamaan ak suuf lépp lu ngeen yéen ci seen doom yi yàlla na ngeen ko am yàlla na seen doom yi tegu ci yoonu siraatal mustaxaam yàlla na seen doom yi tëx gumbalu yàlla nañ la fay ndax nee tëx ci yoonu tëx ci loo xam ne du yoonu siraatal mustaxim loolu mooy tëx gumba ci loo xam ne du yoonu siraatal mustaxim loolu mooy gumba luu ci loo xam ne du yoonu siraatal mustaxim loolu mooy luu lafañ ci loo xam ne du yoonu siraatal mustaxim loolu mooy lafañ yal na seen doom yi tëx gumba luu lafañ ci lu dul yoonu siraatal mustaxim soxna Ami sant nañ leen bu baax a baax yow ak mbooloo mi nga xamante ne nii yéen a nekk seen ginnaaw soxna Anta nag dafa mënta wax waaye li xolam yéene lépp buñ toogoon fii di ko wax dañ koy wax di ko wax di ko wax ba suba conférence bi far fi yam ba benn xale dootul tareete affaire bi moo gàtt waaye kon dinañ ko gën a yaatal jërë ngeen jëf jëfati macha allah macha allah macha allah. waa soxna kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba mooy jaamu borom bi di liggéeyu kattu yonent bi ci toolu lislaam ba am maqaamam xaadimu rasuuli. waa li nga wax lan mooy Cheikh moo wax yóbbuwaat ko ma ak tent mu zayne ak sarsaara loolu la ko tubaab doon def dañu ko daan bundu xataal ci xeeti mitit ak ci mbugal bu dee bëccëg ba mat juróom ñaar sadaqallaahu al-aziim moom ndeysaan xol bi dafa tooy kàdduy cant ngërëm la rekk ngërëm lu jóge ci monsieur le maire Malick Fall mu yebal ñu ñu def délégation boo xamante ne nii lim nañ ko léegi duma ci dellu siwaat mu bëggan fee teewal boppam waaye yàlla mi nga xamante ne ni dara tëwu ko dafa def ba mu am ngànt mu jebal ñu pour ñu ñëw teewe ko di leen sant nag mu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ndax lii nga xamante ni moom ngeen di def foo xamante ne ni alxuraan lañ fay tari ak i addis képp koo xamante ne ni fexe na ba nga bokk ca kooku noonu yow yaa ko ameel ngërëm lii nga xamante ni moom la ñu def ci xale yi ñu di ko dégg boobaak léegi cant ak ngërëm la rek kon lépp loo xamante ne ni lum ci def xeeb na ko ñàkk teew bi nga xamante ni moom la def aussi moo ngi ciy jégalu bu baax a baax te di leen jox daje incha allah beneen yoon te di leen wax ne lépp loo xamante ne ñoo ngi ko fiy def rek su ko yégee lépp luy dooleem luy kàttanam luy alalam lum ca mën rek incha allah dina leen ci fekk ndax lépp lu nit di def mu jëm ci yàlla ak yonent ba ak Serigne Touba képp koo xamante ne nii yaa ngi cay def yàlla moo lay fayal boppam te bëgg na kenn bañ ko cee jiitu kon daal moo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci boole bi ngeen ko ci boole ba mu mën a def délégation mu ñëw aw ñaqam aussi tuut sa mu am mu mën ko caa def te lool xam na ne yàlla rek moo koy fay ak yonent ba yal na leen yàlla fay yal na leen sëñ Tuubaa fay jërëjeen jëf مسها di sàggal mi na subaane ak waxabaane xam naa lu tax sax mag ñu bon ñu waaru waaye du tey may waane ñu ginnaaw sëriñ Mamour Diarra moo ma wayloo way wi di la sole jigéen ñi xaw ma lay kon nag dinaa wax ba samay xiwaas yi ba xam ne bëgg naa lu baax lu baax a néew ab xaj ab xaj bu mag kenn mënu koo talee mbaaw mu taab ci koor borom na doomam yoree ko islam Sëriñ Tuuba ji wala nga bañ alxaat maag maag yi nen góor la nen jigéen la maara xiiru marche la mbooloo ba ca Fuuta Tooro aa faral laax si jigéen bi man kerkeres ak ber du xandak ban suy naan si beer ba bëgg a ne lan joxam na man kay xaaru moo raw fat aa faral laax si jigéen ni karbu wal gu neex sopp leen ay karbu